Sénégal mën ñu leen a fay barke Mouhamed kontaan nañu trop macha allah kontaan li nga doon xaar daal ci bés bi tey gis ngeen ko. macha allah gis nañ lépp macha allah nit ñi ñëw nañu maire yi nag man maire yee ma ci gën a poussé billaahi ndeysaan maire yi ñëw ndeysaan seetaan yëkkat seen alal bi maye man man man maire yi mu touché nag billaahi. da ngaa gaaw a jooy nag. non tey moom dama jooy sànq ba tey maa ngi jooy nag dama feebar mm-hmm. dama sonn. mais nañu liggéey rek yàlla baax na. Charmou Badiane foo génn ñu naan Badiane national loolu lan lay def. sant yàlla bu baax liggéey nday barke baay. waaw liggéey nday barke baay tubarkal la ñaana borom kër. mais tous bi indi rek tent bopp bi ah. lay non loolu kii la rek non non non Badiane du bandi. Mhm. dañuy dañuy neexal rek. man man taalibe Serigne Babacar Sy laa oh. man taalibe Serigne Babacar Sy laa man dama wëyu dama bandi. xaw ma fu ñu koy defee xaw ma fu koy jéem. xëy na nag nit ñi wax leen yaa ngi man on s'en fout man li ma sentir laay def. est-ce que yaa ngi am ay retour yaa ngi génn ci mbedd mi nit yi di wax ngay dégg. non non non man koy ma jàkkaarloog man daan ma bàjjen bandi nga. ma xeex ak yow kenn du ko def da ngay wax nii rek li xam nañ sama doomu band dañuy soob la gars yi. gars yi dañuy wax safal nii rek ak rôle bi ngay joué naka la sa njaboot bi dundee. non samay njaboot yow man samay doom dama leen a yar. man samay doom bu ma toogee bopp bi xaw a jaxasoo dañ ma ne ma yaay defaral sa bopp bi waaye yow xam nga loolu lépp suñu ñun ñun suñu famille dañ koo def nii dañ ko sudee suñu borom kër suñu yaay suñu ñëpp ñun benn lañu am ñu loo xamante ni dañ koy nekk di ko di ko di ko kiiwal wala dara mais man wattu man la saf tent man la neex maa ko def waaye yow da ngaa wattu da ngaa tent yoo man la neex waxtaan naa léegi ak Dame Sène sa frère mhm. mu ni euh, artiste yàlla lu ne mën naa am lu ne mën naa am ndax euh, dañu sant yàlla rek dañuy sant yàlla sant suñu waajur yi bu ñu fàtte waajur yi ak kilifa yi dañ leen di sant bu baax a baax a baax a baax sénégalais daal mi ngi noonu mi ngi moom daal sénégal mi ngi noonu moom koy loolu loolu la bëgg ci xolam mais tamit nag am na ñuy liggéey de wallaahi am na ñuy liggéey non maa ngi liggéey maa ngi liggéey mais am na ñuy liggéey tamit aussi sa diggante ak Wally Seck man Yacine Mbaye sa bigé ba dem bàyyi ma sama diggante ak Wally Seck kooku sama xarit la sama lépp la ana oto bi moom nga indi bañ a ku loo indi leneen jëlu ma jakartaa na jël la jëlal ma ca kattan jëlal ma ba sama oto laa indi. oto da nga maa waxoon ko mujj a bàyyi ndax coono dafa bari. dara wu dugg turu biir damaa turu turu biir nekk. yëkkatee ko ma turu bi laay baax na. oto bi nga xamante ne daa mel ni. ana sama nijaay. dégg naa yéen ñaar sama jëkkër waaw ah, ay xarit kooku sama papa la. sama jëkkër sama papa ndax ah, sama papa dafa jàpp sama loxo dénk ma ko. sama mm-hmm. koo defal ñaar fukki at juróom-ñett. waaye lu tax man ni ngeen am bàjjet bàjjet la kuy sëy am ci def jëkkëram ñaar fukk ak juróom-ñett ale man fu ma bandee fan laa jëm ban côté laay jaar ban aliya laay jaar ban aliya laay jaar bande ñu ñëpp arrêté nañu fu ma jëm d'accord tey nekk aaw macha allah am ñaari rakk ñu ñëw fekk si la yan conseil ngay joxe jamono ji nga xamante ni wujje yi dafa mel ni tendance la rawatina tiktok bi ku génnul feccoo wayoo rek wujje wu loolu seen affaire la man day wax dëgg yàlla man néew ma ci tiktok bi def man tamaatoogul sax man su ma xëyee dem naa ku xëy di dem koy ko gaar waalante ak koy teesantale koy waxaat ci si nabak TikTok man aw ma jot ñoom amuñu jot. sa bopp euh, man damay jaay cuuraay. go dégg nga Goyo dëkk bi yëngu na Goyo Badiane maa ngi tudd dëkk bi Goyo gu neex wax Goyo bu pëndax bu sax. est que yaa ngi jaay. man. non bu ngi jaay ñeneen ñi ñoo jaay xale yi ñoo jaayut man ma maa ngi jaay. maa ngi yaa ngi gis sa bopp ci seen ñi ngi sant bu baax. te gis nga euh, liggéey bi amul xaalis ay xaalis yëpp détail la. tey ji la ngay la am yaa ko liggéey sa bopp mën nga liggéey ñu fay la nga liggéey ñi bañ laa fay la ak sa bëgg-bëgg man yàgg naa liggéey te kenn du ma fay mais ñi ngi sant bu baax. ñu ngi sant bu baax ndax li ñu nit ñi defal rek moo ëpp sax fay gi wallahi al azim li ñu nit ñi defal moo ëpp fay day wallahi al azim jiitalu ma xaalis barke Sëriñ Babacar man xam nga lu ma jiital gëm-gëm ak liggéey sa micro bi tuuti ma yëy ko <laughs> d'accord mu mu mu mel ni tey gis nañu euh, euh, euh, xeesalkat yi ñenn ñu sax la ñuy wax. ñuy ah, xeesal yaay tooñ man de ah, tudd ma xeesalkat yi fa la ñu ma tànn damay bañu live. non mais xam nga seen tendance bi dafa bari. ñu gis la nga nekk jamaa noir macha allah bi ngeen conseil ngay jox xale yi. non man xamul sama problème man damaa xeesal ba bàyyi. barke ah. yonent bi da nga bañ ñu yóbbu la vaar maa leen dàqoon na xeesal. Ah damaa xeesal man amuñu fa tey xeesal. damaa bàyyi bu fekkee xeesal la ñu man damaa xeesal ba bàyyi. léegi nag yàlla def na yow sa micro bi naa ko yëy de. <laughs> ko sama sikkim bi la dem. yàlla def na diwoo tuma xeesal. defatuma dara sama karité laay diwoo su ma xëyee sangu lu tax nga bàyyi ma gis ci réew mi. aywa teg ma ba ñu dugal bala ñaa xëy di ma teg te naan bàyyi gën a fi wax nangam dama damay tontu. non mais yow sax da nga bàyyi yow laax yow lu tax nga bàyyi. maa ko bëggatul. ndax lan. non dama ko bëggatul rek dama jékki-jékki rek man bëggatuma xeesal. kon yoo xam nga tànn. damaa mën a xeesal su ma xeesal da nga naan bàyyi gën bul bàyyi xeesal barke Mouhamed damaa mën a xeesal. man fii nii bàjjen dama koo bëgg. waaye itam mag laa nag mag lu mu dëgg ci des ak ña lay jóg. am ñam waaye noonu la yàlla baax na <laughs> leen dundandoo rek ñu ngi sant bu baax a baax maa leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di kontaan nag surtout ci yéen di leen ñaanal yàlla na leen defal jàmm lépp loo leen liggéey yàlla bu ci ordonnance génn ci barke Serigne Babacar yàlla bu ci benn damati paracétamol génn parce que li nga tax taasukat nga réellement wala comédien non man artiste laa boo nee artiste nag boo doonee artiste da ngaa war a doon polyvalent d'ailleurs may nuyu àdduna bépp di nuyu waa Thiès gi nu jóge macha allah di nuyu waa polygame man artiste laa boo doonee artiste da ngaa war a doon polyvalent. man géwal laa damay woy damay taasu damay ngoyaan damay théâtre mais dama mën a taasu. naka nga gisee spectacle bi tey. neex na trop macha allah suñu xol sedd na parce que dëkk bi génn nañu te loolu lañ ci bëggoon macha allah kaw seen bi jaar na yoon. dañuy sant yàlla rek. lan ñuy xaar polygame ci beneen beneen épisode yeneen mm, saison. mais polygame yeneen saison tubaarikàlla yu bees tàq ay façon ak i facettes yu bees tàq ci polygame tubaarikàlla polygame moom du jeex. macha allah merci kontaan nañu.